wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki taalib yi gannaaw bu nu sante suñ boroom subhanahu wa di dellu di julli ci sang-sang yi di yonti yàlla met alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi leen di ziyaare bu baax waaye di jiital ci ziyaar gi sunu kilifa sunu lépp di sëriñ taxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam banaal bii mu fas yéene liggéeyal maamam gu tedd ga di xaadim rasuul sunu boroom defal ko ci lu kawe njortam te mooy bil Mustafa li banal xuduusul madrasatan biha yazulul aza wal jëhlu wal kabat muy ñaan goo xam ne nag xaadim rasuul moo ko ñaanoon boromam ne ko nag ma may li ñuy tuddee madrasa madrasa nag buñ ko waxee muy établissement mooy jànguwaay woo xam ne bés bu taxawee bi haysulul aza dana fi jële lor wal jëxlu ak réer wal kabat ak coono te bés bu fi réer jógee lor jóge fi coono jóge fi kon Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér di ziar bu baax mboolem ku nekk ci biir daara ji rek daara ji moom damay wax ni sama daara di ziar jëwrin ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci biir daara ji maa ngi lay jox sama loxo di la ziare comme dañuy njëkkanteeg waxtu ji rekk di ziar góor yàlla di ziar soxna yi ñoo ngi leen di ziar bu baax comme dañuy njëkkante ak waxtu wi li ci njëkk mooy ni ñu tàmbalee guddi gi ci dundal ko ci alxuraan dinaa ci jox joxe benn xisa bu gàtt soog a dugg ci guddi gi nga xam ne mooy guddi yont yàlla met alayhi salaatu wassalaam ndax sëriñ bi ku fonkoon alxuraanul karim la ku ko daan dundal la soo xoolee jumaa ji di jumaa njaareem keroog bi muy tegi lu ñuy tuddee premier pierre sëriñ bi moo ko tegal boppam keroog bi muy teg xeeru njëkk wi dafa jàng aaya bi nga xam ne moom la yoon ci Yàlla Ibrahima salaam jàngam jàngoon keroog bi muy taxawal fonki kaaba gi te mooy wa is yarfau ibrahimul xawaida min al beyt wa rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim aaya boobu la sëñ Tuubaa njëkk jàng la jàng daal di kabar julli teg premier pierre bi doog a kabar julli ñaari rakka bi mu sëlmalee mu ne alhamdulillahi rabbil alamin sëñ Mamadou Lamine Diop moo wax ne sëñ Tuubaa liggéey na jumaa njaareem ci diiru juróom ñeenti at nee bi jumaa ji noppee mu suñu faa julli waxtu te wàccewuñ fa ab kaamil nee na buñ julliwaan suba daan nañ wàcce ñaari kaamin suñ julliwaan tisbaar wàcce benn kaamin suñ julliwaan tàkkusaan wàcce benn kaamin waaye suñu julliwaan timis daawuñu wàcce kaamin ndax nee na ñaari kaaminu suba yi benn bi moo daan yóbbaale bu timis yi waaye bu ñu demee ba guddi ajjuma dañuy wàcce juróom-ñaari kaamin nee na juróom-ñaari kaamin guddi ajjuma yi ñoo daan ëmb juróom-ñaari gée yi nga xam ne moom lañ daan julli ci biir semaine bi mu wax moom sëñ Maam Dagana ne dafa gis ci benn téere bu ñuy tuddee Zadul Maadi fi Hadi Xayril Ibad yi mu gis ñi ñi daan bindal yon ci almet alayhi salaatu wassalaam alquranul karim fukk lañu woon ak juróom benn nee bi ñu nekkee njaariim ñi daan bindal Xaadim Rasuul alquranul karim tam fukk lañu woon ak juróom benn nee na mu gis ci téere boobu nii ñi daan liggéeyal yonent bi juróom-ñeent lañu woon bokkoon na ci benn soxna bu ñuy tuddee al barakatu ummu ayman nee bi ñu nekkee njaare mi daan liggéeyal eh, xaadim rasul juróom-ñeent lañu woon bokkoon na ci benn soxna bu ñuy tuddee awasa li ma ci li may justifier rek mooy li ma ci wane mooy wane maanaam sëñ ni mu fonke woon alquranul karim nga xam ne amu benn dëkk ci bu mu sañcte sañcewu ko alquran kon li mu am ci alquran kenn musu ko ci amee daan na wax ne xawaytu fi alquranum sirran wajaba an la yazaalu abadan mutajiban nee na làq naa ci alquran secret boo xam ne li ci war mooy dama koy nëbb rekk ba ëllëg waaye ëpp naa feeñal ci àdduna dem ba wax ne xafis suma anzalahu jalilu xabla nuzulihi maa tarti yi bi may mokkal alquran boobu alquran wàccagul ci yonent bi kon ñoo ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo doon wàccee kaamin bi di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay te guddal seen fan ndax nag waman araada xurba min mawlaa fal yaqra il quranu la yanfaaw sëñ Tubaa na ku bëgg jege boromam del jàng alquran te bañ koo fàtte bañ fàtte bi nag mooy fooy tollu bi révisé li ci des mooy guddi gi nga xam ne moom la ñuy màggal ku ne xam ne ni giiru Quraysh mooy giiru Seydina Muhammad su ma nee giir nag olof giir la séeréer giir la tukkuleer giir la su ma nee ci giiru arab yi giir gi ñu tuddee Xuraysh mooy giiru Seyduna Muhammad di giir goo xam ne moo gën a tedd ci giiru arab yi di giir gu ëpp éloquence ñoo ci gën a rafet ay wax waaye ñoo ci gën a tedd tam ay jikko kullul arab yi yuhibbuna araba Xuraysh arab yépp daje nañ ci bëgg arab yi xuraysh yi dañuy dimbale gan di dimbale borom aajo te boobu islaam ñëwagul ku mësaana ak si ñoo lay dalal teral la ci giir googu ca la ay maamam soxi ko moom yonte yàlla met alayhi salaatu wassalaam moo tax li Muhammadul Busheeri wax ne lam tazal fi dama iril kaw nii tuxtaaru lakkal ummahaatu wal abaau yonent bi sunu boroom du jóg di ko tànnal ay maam yu góor ak yu jigéen ba keroog muy gane jamono makka nag la juddoo makka nag baldatun mubaarakatun min bilaadil arab makka bokk na ci réew yi gën a barkeel ci réewi arab yi di réew mu yàgg moo xam ne bu njëkk ñu ngi ko daan woowee ummul qura muy ndey dëkk yi di réew mu yàgg yoon ci yàlla ibrahima alayhi salaam moo njëkk gàddaay dem Makka moom mook doomam gi ñuy tuddee Ismaïla ak soxnaam suñuy tuddee Ajara di réew mu yàgg di réew moo xam ne fa la ñu sanc kaaba gi fa la diine islaam njëkk feeñe ci yonent bi fa la alquran tamit njëkk wàcce ci moom waaye fala la yonent yàlla mat alayhi salaatu wasalaam gane jamono kuy waajuram abdullahi moo ko jur mooy waajuram abdullahi ku ko jur abdul mutallib abdul mutallib ko jur ashim abdul manaaf abdul manaaf ko jur xusay kilaab kilaab murrata murrata kaxaab ko ko jur noonu la sëñ Bàmba di limee ay maamam ba ci maamam bu ñuy tudd ñuy tuddee àddunaan àddunaan nag yonent bi waxoon na ni kuy lim ay maamam ba egg ci adnaan yamal foofu moo tax boo demee ci téere bi ñuy tuddee wajjahtu kulli lil wadudi samadi za xidmatin lil mustafa muhammadi sëñ tubaab bi muy tàgg yonent yonent yàlla mat alayhi salaatu wasalaam ci adnaan la yam boo demee ci xilaasu zahab bu alaaji malik ah, bi muy tagg yonent bi ci adnaan la yam waar waajuram bu jigéen nag ngir tuddoon soxna aminatu kaanat aminatu min nisaai qurayshin nasaban wa sharafan min afdali bokk nisaai qurayshin nasaban wa sharafan aminatu bokkoon na ci jigéen yi gën a tedd ci jigéenu quraysh yi ñoo ci gën a moo ci bokkoon na ci ñi ci gën a tedd ah, gën cee bari ay privilège Abdoulaye moom Abdoulahi nag moom bi gannaaw bi mu dencee soxna Aminatu dafa dem Màkka defi commerce bi mu demee gannaaw bi wax nañ ni ci la tawat ab diir mu toog ko Médine ci ay nijaayam bi mu toogee diir weer ci la tawat gannaaw gi mu faatu ñu denc ko Médine boobu soxna Amina mi ngi ëmb yonent bi ba am ñaari weer moo tax yoon ci almet alayhi salaatu wasalaam xamul waajuram wu góor xamu ko maamam abdul mutallib moo ko yar moo tax keroog bu ñëwee ni ko soxna amina am na tu tànk bu góor maam ji dafa ñëw fekk ko muy wër kaaba gi dafa ñëw jël ko dal di koy wëral kaaba gi dugal ko ci biir daal di koy ñaanal moo tax yonent bi xamul waajuram bu góor maamam moo ko yar ki ko njëkk nàmpal nag mooy waajuram bu jigéen ak soxna suñu tuddee suway batu am na ku ñuy wax Alimatu Saadiya nàmpal na yonent bi ndax dafa bokkoon ci aaday arab bi waa taaxi bu ñu amee doom dañu koy yóbbu ci kaw gi ngir mu nàmpe fa yaroo fa ndax nature bi nekk ci kaw gi waa taax amuñu ko te tamit waa kaw gi ñoo gën a dégg arab ñi ci taaxi bu ko defee su fa xale ba nàmpee yaroo fa ci lay gën a am wérub làmmeñ te mooy éloquence te ci lay gën a dëgër giir gu ñuy tuddee nag banu saad dañoo ñëwoon màkka di wut si ku ñu nàmpal bi ñuy ñëw nag ñu ngi ànd ak soxna si di alimatu saadiya comme alima ah, dafa tuuti woon ba ñi joxe seen doom nanguwuñ ko jox seen doom yonent bi tamit comme bàyyam dundul ñaare bi ñu koy jox amuñ ku ko jël moom yonent bi mu bokk ci changement moom alima bi mu ko gisee mu daal di am ñeewante ci moom daal di koy jël wax nañ ni jamono jooju boobu alima ween yi dafa fen gi amul soow waaye bi mu ko yëkkatee sunu borom dafa dogal fee weeni dal ak soow ci barke yoon ci almet alayhi salaatu nga xam ne bari na ci kéemtaan yoo xam ne ci nàmpal gi mu nàmpal yonent bi ci la ko sunu borom wane kéemtaan yooyu nga xam ni ma dafa amoon doom waaye doomam la daan nampalee weeram weenu maanaam càmmoñam di nampalee weerant bi weeru ndeyjooram waaye gis na ni bu jëlee weenu eh, càmmoñam di ko jox yonent bi yonent bi du ci nangoo nàmp ngir boobu xam na ni weenu doomam la bi mu amee ñeenti at wax nañ ni la yëkkati eh, yonent bi jox ko waajurum wu jigéen bi mu amee juróom benni at dama koy tënk rek la fi waajuram bu jigéen bàyyi ko mu toxo ci loxo yi waajuram bu jigéen jëm ci loxo yi maamam gi ñu tuddee euh, Abdul Muttalib nga xam ne wax nañu sax bi mu amee juróom ñaari at gannaaw bi fi waajuram bu jigéen bàyyi ko wax nañ ni yonent bi wàllent na wàllent bu metti ba euh, nga xam ne maamam yóbbu ko ci benn labbe ngir maanaam mu faj ko nga xam ne benn labbe boo xam ne docteur la bi mu demee dane ko kii de dawaa uhu riixuhu ne ko kii médica médicament bi koy faj mi ngi ci moom na li ci ñaari baaraam yi raay ko ci bëti daal daal di wér ci même at mi ànd naa maam ji ñu dem ziyaare ji ku ñu tuddee ibni zi yazanin ci dëkk bu ñuy tuddee yamen ci nguur gu ko suñu borom faloon fale bi ñu demee ibni yasamin yëkkati na kado yu bare jox ko maanaam maamam ne ko xamal nañ ma ni gone gi nga àndal mooy doon yonent bi mujju feeñ ci jamono nga xam ne bi mu amee neuf ans maanaam la maamam la fi maamam bàyyi koo mu toxoo ci loxoy maam ji dem ci loxoy ab abu taalib ñu gën koo xam ci abdul manaf Abdoul Manaf nag maanaam mooy magu euh, papam bi mu amee 12 ans jóge na foofu maanaam ànd ak bàyyam boobu di Abdoul Manaf ñu dem maanaam Cham defi commerce bi ñu demee ba romb maanaam labbe boobu ñu tuddee Bahira bi mu leen gisee mu tàggali ko sagoom ba bi mu leen invité mu woo leen bi ñuy ñëw ñu ànd ak yonent bi ne ko comme yow labbe ji daf ñoo woo nañ nga toog fii maanaam toog téyel ñu bagage yi ñu dem wuy ji ko bu ñu demee dana leen ndax Euh, ana xale bi ngeen àndal ñu ne ko ma nga fa téye bagage yi mu ne leen dem leen ngeen wooyu ko ndax moo tax ma leen di teral yooyu yëpp li ma li ñu ci jànge mooy yonent bi ku teel a ñàkk ay waajur la a ñàkk ay waajur la ku la ci dundam yooyu yëpp dañ ci bëgg jàngale rek ci loolu bi ci des mooy dama bëgg dugg tuuti ci lan mooy valeur u màggal guddi gii nga xam ne muy guddi gàmmu gis ngeen lii ngeen dajale ci seen alal joxe ko ngir jëmmi guddi gi nangeen xam ne alal dugal ko fii maanaam moo gën a yey jël ko di ko dugal feneen ndax gis nañ ci mbindum sëriñ bi barki dem rek maa ngi ci jàngale di leen ko wax ci fu sëriñ bi wax ne képp ku dépensé sa dërëm def ko ci guddi gii da nga mel ne ku teewee bisu Unayni ak bisu Badar di xare ni saaba ya ndax boo xee ne fa kullu man anfaqa fii mawlidihi musharrafi maalan bi gayri sarrafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma Unayni wa sabar wa yowma badrin wa mu fahami ku xam na ni dafa ni sëñ Tubaa dafa ni fa kullu man an fii képp ku dépensé mawlidihi musharrafi ci guddeem bu ñu teral bi moom yonte yàlla ma met maalan bi xayri sarraf yi donte da ngaa dépensé ci du dul yàq walaw bi xadd xam yi donte dërëm nga dépensé ngir guddi gi fa ko kaman xadar da nga mel ne ku teewe yow ma unayni mooy xare unayni wa yow ma badrin da mel ne ku teewee bi su badar wa nasar nag te nga dimbale xayral wara ngën gi mindéef maanaam ku jël sa alal def ko ci guddi gi da nga mel ne ku maanaam teewe bisu su badar bi xare ni saaba ya maanaam demoo badar waaye danga am yoolu badar mu wax ne ki nga xam ne da koy màggal kenn du ko isaab ëllëg yowmal xiyaamati xam ne ku ne xam ne ni sëñ bi wax na ni fa man yuazimu mawlida nabiyuna babil uda fala yuhasabu gadan faxtariman wa azimi fa man yuazimu mawlida képp ku màggal juddub nabiyuna babil uda sunu yonent bi nga xam mooy buntu njub falaa xas bu xadaa kenn du la isaab bu ëllëgee mu ne kon faxtari man na war warmal guddi gi waa azimi ta nga màggal yàgg na rawatina ki nga xam ne da ko màggal ci suukar ak ndawal nga xam ne dafa togg maanaam lu deme ni ndawal ci guddi gi joxe ko walla toog defar lu deme ni ataaya wala meew wala suukar lu saf suukar bu deme ni boisson joxe ko ngir jëmmi yonent bi ci guddi gi ndax sëñ tubaa dafa ne fa kullu man xad xadara mawlida afdalil wara muaziman mubashira bi suukarin aw lahami fa innahu xad zafira bi ma yuddimu bushara wala yulaaxi darara yowma timaami umami mu ne fa kullu man xad xadara képp ku teewee mawlida afdalil wara guddi ngën gi mindéef nga def ko nag muaziman ngir màggal guddi gi nee na mubashira nga bégle ci guddi gi ñu ne ko sëñ baam ba bëgg la ci lan mu ne bi sukkarin ci lu dem ni sukkar aw laxami wala ndawal laxmu mooy ndawal mu ne fa innahu xar zafira ki def loolu gañe na ñu ne ko lu mu gañee mu ne bi maa yuddimu bu shara lay saxal mbég ca moom te wax na ni walaa yu laaxi dararaa ki def loolu du dajak lor yow ma timaami umma mi bésu raj-raj loo ba te mooy yowmal xiyaamati kon képp ko xam ne